may àddu ci sorti yaayaa bi mooy damay jéggalu parce que jéggalu bi mooy euh, tontuwu ma ko damay leeral parce que tontu mooy nit wax dara nga tontu ci ay waxam waaye bu waxee loo xam ne daf la ci yóbbaale laaj na yooyu bu fekkee ne ci nga bokk nga leeral ko donc moom dafa toog keroog ma dégg ko mu ne waa APR yi ancien yi dañu méré président Macky ne lolu bu ko waxé man bu na ci ñaar man ci ñaar parce que ñi nga xamné né tay samp parti bi ci département man ci juroom ñaar yi ko samp man ci la bok wala sax man man ma ci APR bu ne doom la bi man la euh, euh,

juróom lañu amoon ci commune Koungheul ñu amoon ñaari conseil yi njëkk am ci département Koungheul bi moom bokk ci mooy mburu Mburuka ak boñ euh, Bonji soow ñaar ñooñ ñooñ lañ njëkk am ci conseil ci département Koungheul kon jàpp naa ne moom bu waxee ancien la te mu nekkoon conseil te limaale wuñ ko ci loolu kon moom xam na ne moom bokk ci parce que bu muy nekk bu muy bu mu bu 2009 bu ñuy dem élection mom ci liste PDS la nekkoon mu bëgg jité liste bi mu mer gedd dem kër mam Samba Seck ancien député ancien maire koku moko jox liste libo bi mu jité ko bobu Benno sigil Sénégal mo amone ñun ñu démé won ci liste bi Benno sigil Sénégal sénégal ñu démé won ci ci bannière euh, Dekkal Ngor donc coalition bi Benno sigil Tanor la Benno sigil ak Moustapha niass ak Dekkal Ngor ñun ñett ñoo demoon

mané ko ku ta gagné bureau de vote am doon parce que bobu commune am 449 voix la fam 449 voix ci département bo xamné né 40000 lañuy wër yow bo né dang koy jité da nga yàq parti donc bu lool la japon né mënu ko jité té jiitewu wuko té bobu ñun commune kungal 14 bureau de vote mo fa amul benn bureau de vote boo xam ne ñun APR ñàkkoon nañ ko. donc ñun mënuñoo mënuñoo yor quota département bi ba paré mom mu perte commune am perte bureau de vote bu muy voté ba paré mu bëgg jité département ci loolu lañ déggoo comme coalition la won coalition ak Tanor coalition ak ñass euh, il fallait que ñu sét ci ñaari coalition yi ko xamné ne ne moom ñuy mo ñuy mo ñuy moy nek mom lañuy ñuy coordinateur deuxième tour ñu tànn Seydou Sy Sall moom mu boycotter keroog bi président Macky ñëw moom nekku fa kon moom bu doon sagoom li muy wax nii tey kon président Macky dafa nekk parce que bu gañu wutoon deuxième tour du fi nekk tey loolu moo ko topp ba élection législative président Macky moo ñu woo ñaan ñu ne Moustapha Niass kilifaam la président Moustapha Niass kilifaam la te moom dafa àndoon ak moom ci ngor 25 pour cent la am deuxième tour mu am cinq pour cent du ànd ak nit mu wor ko nañ ko dimbale ñun ñu tànn jigéen moom mu tànn. Euh, président Moustapha Niasse tànn kenn mu tànn Seydou Sy Sall moom mu bañ dafa ne parti bi kon bu fekkee ne ne moom même bu fekkee nekk na président amul majorité assemblée nationale kon tey du gouverner kon tey du am deuxième tour loolu bokk na ci élément yoo xam ne ne moom def na ko ci ay ñaawteef ci président Macky Sall te jàppee woo ko beneen bi ci gën a doy waar mooy élection locale. conseil départemental bi nga xamné tay tey APR a ko gagné moom dafa sanctionné parti bi amna ay localités yo xamné tay ci bir commune rurale yi benn conseil la ñam té bu fekkone ne mom joxé woon na ay représentants bureau de ci ci localité yoy commune bu nek au moins warna am 5 représentants donc lool yépp ay défaut la ak ay mbiram yo xamné ne ne mu ngi koy def. te président Macky vraiment di ko ci di ko ci di ko mën naa wax ne sax seetaanu ko parce que moom noonu la ko yàlla bindee dafa nekk nit koo xam ne ne xol bi rafet moom bu la xasee ba jàpp moom lu bari mën na la ko muñal. bu demee nag ba nga xam ne léegi day sosal ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti bi wala di sosal président man war naa nag taxaw wax na ne li muy wax amut Yaya Sow lu muy wax a tey amut lu muy wax suba amut li mu naxee président yàgg nag ko naxee te. mun na tey mën naa ci wax tey bi suba ci ay jëfam yu ñaaw yoo xam ne def na ko